boy ne mbokki Sénégal mbokki amateurs yi le retour de Ndiaye production stadium Iba Mar Diop loolu le 18 mars la dama ne olof Ndiaye dafa ne bu jinne soxlaa Dakar ku yéeg daanu kon bu Ndiaye soxlaa Iba Mar ñëpp dañuy puus ca gannaaw bàyyi ko mu doxal ndax bu bi amoon làmmiñ di wax dana leen ne li ma Ndiaye di teg moom rekk ku mën muy le roi du stadium ñëpp nangul ko ko mu ne xaar leen ma fa le 18 mars ma ne ko loo fa yóbbu mu ne ma diggante feu rouge ak bulldozer ma ne ah Ndiaye bu yegg see amateurs yi xam ne waa ji ñëw na bu Iba Mar tijjee ñu xam ne borom yegg si na waaye bu feu rouge jàkkaarloog bulldozer ñu xam ne xaritu amateur yi amal li ni mel mooy ki nga xam ne lu mu tëgg njar ndéem la mu ne ma combat préliminaire yi nag boo ci jël mu dàq grand combat ma ne ko limal mu ne ma ngéwél gi ak Mor Kankang 2 mooy premier combat ba deuxième combat Ramdan Junior ak 55 troisième doomu Minam ak Bombardier 2 quatrième combat Bébé ak Boy Paul cinquième combat Modou Yacine ak Xarañ Sarr sixième combat ak Barodi septième combat Carrière ak Zilo huitième combat bay dox ci diggante Jinne bu ndaw ak Julde 2 dox ci diggante Sall Ngaari bu jëf soog a nekk ak Bada John muy lamb ji amateur yépp di xaar gannaaw ba ñu nammee Ibamaar mu ne sponsor ya maa ngi ànd ak Jojo Meuble ànd ak Crax ànd ak Njaay Global Business entrée mu ne bu dee tribune supporter tribune amateur francs bu dee loge VIP 10 000 francs kon mbokki amateur yi bés baa Njaay production dellu na ci Ibamaar mars la woote ci diggante Feu Rouge ak Bulldozer kon mbokk yi bu nu ko kenn nit asalaamaaleykum mbokk internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivre sur Kewel Info du nuy kilifa diine kilifa aada yëpp ak lutte sénégalaise du nuy kilifa diine kilifa aada yëpp du nuy suma sëriñ notre responsable moral bu daayit Moustarchidine wala Moustarchidaat du nuy kilifa diine yëpp actualité oblige tey nag ñu ngi fii si Guédiawaye ñoo seet si champion miin ngeen ko suñuy écran ñu fas yéene waxtaan ak moom li nga xam te moom mooy actualité Lac de Guiers numéro 2. Sa Thiès Reug Reug ak combat ak Tapha gis nañ tamit ay yeneen yi combat ñu waxtaan ak moom mais sans plus tarder euh, ba léegi affaire bi daay am suivi di bëggee nag ñi nga xamante moom mooy Thier ak Lamine di ko bàyyi nag mu nuyoo ñu dugg ci li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi la déguère de la maa fii maa ngi lay fay di nuyu képp kuy bëgg Lac de Guiers numéro 2 di ziar waa Géejawaay baax baax baax ak bi ma dëkk di jël nuyoo bi di ko teg sama loxo papa papen du ñuy waa XFM vie bàcc géejuwaay gi yëpp bàyyiwuñu kenn fan si la déggee yëpp sama papa yi sama yaay yeeg ñëpp sama rakk yi ñëpp ñu ngi béggee ñëpp daal nuyoo bi am na solo waxtaan nañ ci waxtaanaat ci mais dafa nekk li nga xam te ne mooy actualité mu nekkoon Sa Thiès Reug Reug ñu gis ni communiqué communiqué communiqué nga ci pendant avant et après Lac de Guiers Sa Thiès ak Reug combat bi déroulement bi duma ne noo ko gisee dama naan noo ko dundee parce que gis nga dafa mel ni comme si c'était que ne Lac moo doon bëri ndax sa relation ak Sa Thiès. waaw alhamdulilah nekkoon na làmb ju neex a ah. làmb joo xamante ne ñaari mbër yi ñu ngi ko doon préparé depuis six xaw ma six mois quelque xaw ma mu nekk làmb ñëpp di xaar. dimanche la woon ñaari mbër yëpp pare nañ ñëw nañ ci làmb ji joxe nañ à fond ah, ndam li sama rakk ji jël na ko sant yàlla bu baax waaw bég ci nag bég ci trop. <laughs> waaw dinañ ñëw si loolu tey la dëgër combat euh, Reug Reug ak Sa Thiès seen côté préparation ñaari mbër yi nan nga ko gisee. waaw ñoom ñaar ñëpp pare nañ ah boo mën nag sincèrement parler ba suur Reug Reug boobu suivre ma ko à 100 pour cent. bésu saa kees daal gis naa ko ñu ngi nuyuwaale coach gi coach um, gi ah. waaw ah, gi ak papis sama doom day papis xam la ñu def ci loo xamante ne lu mucc ayib te ñun ay sportif lañ bu nee jàq nit rek dañ xam ne ni kii liggéey na wala liggéey waaw te bañ dajee open press ba man maa tey sax roofanteeg moom noonu doon peese xool ba ma peese nag la ma ca daj nag man xam naa ko waaw moo tax ba gars yi wax ma ne leen noonu. pare na waaw. mais avant li nga xamante ne mooy open bi ñaari mbër yi amoon nañ face to face ñu gis ni face to face bi ay xëppante gàllaaj moo koy yàqoon ñu gis ni après euh, ba action boobu amee la dëgër face to face bi. gars yi naan léegi combat bi mystique ndax gis nañu Reug Reug dafa am mystique affaire mais après psychologiquement euh, amul dara lu mu def euh, ci cancer non làmb làmb làmb milieu bi moo graw quoi lépp ciy xew nag il faut gars yi di ko sóoraal di ci bàyyi xel nag mais tam gars yi na na ñiy ànd ak mbëri nañ ci nañuy éviter yooyu parce que tamit euh, buñ ne dernière face à ñëpp ñu ngi xaar maanaam ñaari mbëri seen seen dernière parole lan la xam la gars yi il ñu être il faut ñu nekk ay nit yi nga xam ne dañoo fair play fair play dafa baax ci sport waaw parce que day tax tamit euh, sponsor du ñu daw bu ñu soxlaatee beneen millier tamit. na fekk na milieu boobu tamit dañuy dem laaj ko boroom boroom jox ñu ko ci jàmm. Mm-hmm. yaa ngi dégg mais bu fair play amul rek coow am ci yàq am ci rek prochaine fois dañuy soxla milieu boobu duñu ko jox. ñu ñëw euh, ci li nga xamante ni moom mooy ci combat bi gis nañ ni géejawaay ñëpp génn soutenir Sa Thiès combat bi moo leen ëppoon dayo wala Sa Thiès combat bi waru koon perte. wala lan lan la gis nañu yéen ñëpp a génn ah? ñëw soutenir Sa Thiès lan moo taxoon loolu. waaw xam nga Sa nekk na raq ju raq ju baax raq ju jox cër ay magam Sa Thiès soo ko gis day kaf di fo di ree bu ñu gisantee maanaam moom da yaakaar ne te pourtant dañuy yàgg dañuy toog ay ay 3 ou 4 mois du gisante bu ñu gisante da ngay yaakaar ne démb rek gisante nañ maanaam moom mu jox ay cër nag. cër ay magam jox na ñëpp cër ba su nit day am mu ñëw teew ci sonn ci say mbir moo tax bu mu xewlee lu mel nii mu war a bëri rëg-rëg ñun ñëpp dañ ciy taxaw jàppale ko ci dooleel ko ci open press am war na ko ñun ñëpp ñu ngi sa ginnaaw ñaanal ko ci yàlla pousser ko ci victoire bi pour mu am ndam te alhamdulilah sant yàlla baax a baax ba ñun ñëpp luñ doon ñaan géejawaay ndam di dugg si foofu lañ doon ñaan te yàlla defal ñu ko. ci biir combat bi gis nañ ni Sa Thiès ñëw na Reug Reug ñu gis ni euh, Reug Reug bien vrai que ni nee nga gisoo woon li nga xam te moom mooy état am mais jour combat bi gis nga leen nag ñoom ñaar ndax daan nga déggoon ngeen ñu naan Reug dafa jël poids dafa jël poids mais ba nga gisee pois Reug Reug gis Sa lan nga wax. waaw dama xam ne ne instant liggéey na mais nit ku nekk. la nekk ci yow na ko moom rek boo ko moomee rek doo sonn la nga moom bu nekkee ci yow doo sonn ci dara. je sais pas moom dégg naa ci biir waxam nee na moom lu mu bëgg a toll da koy toll nu mu bëgg a mel bu ko neexee wàññi bu ko neexee def ko neex loolu moom la concerne de nu mu bëgg mel na ko mel mais dafa am combat yoo xamante ne tey boo ci nekkee rek. bul ne diw dafa gaaw wala dafa def nii rek nga ne damay jël pois dafa am ñoo xam dañoo moom poids am ñam moom ñu ko yaa ngi dégg ñëpp ay sportif lañ nu ñu bëgg a dañ koy toll mais da ngay xool lay arrangé bés ba te saaket boo ko nga xam ne pare na waaw ñoom ñaañe ba ñu summee ko xam nga samay wax dama koy wax ci yeneen émission peut-être dama ko waxul ci fii site bi mais dama ko dañuy gars yi dañuy jël yeneen site yi nga xam ne foofu laa ko waxee nee naa leen saaket du ragal. gars yi ba léegi gëmuñu ma à cent pour cent ma ne leen dafa mën a bëre waaw gars yi comprendre nañu ba léegi xam nga ñoom dañoo comprendre du question ay farat yooyu buñ jëlee far teg ko ne mm. maa ngi contact nañ jàppale na ma samay combat contact nañ xam naa li muy bëri xam naa leen kii bu paree dëgg dëgg dëgg dara téye ko di daanaan la mais nag boo waxee dañ naan dafa faram wala def nii fekk araam damay wax sama diggante ak sama boroom rek man xam naa ne Sa Thiès ndaanaan la bi avant loolu dama la jël laaj la si nga ne ma Sa Thiès ndaanaan la te combat bi dina am lu mu wone ma laaj la ci cadre bëre nga ne ma dina xeex dina bëre ñu gis ni lecture boobu nga defoon dafa ñëwaat lan moo taxoon nga wax loolu. parce que dama ko xam dama ko xam dama xam qualité bi du ragal de gars dañoo comprendre xam nga mbër mën nañ ko mën nañ mën nañ ko laal ci mystiquement bu ñëwee day fit gi di fane léegi nag boo ko jàppee daan ko dañ naan dafa ragal wala dara fekk heure que demee fa noonu nit ku nekk la ko yàlla moo ñaale Sa lépp teg teggi la duggal ci début carrière u Sa Thiès gis Sa taxaw voilà moom day dal sa kaw ak lu mënti am day ñëw sa kaw yaa ngi de bu dalee du def une minute quinze secondes dafa am nit yi mel noonu dafa am ñoo xam ne seen seen seen combat yëpp yëpp yëpp teg-teg la moo tax bu ñu nee Sa Thiès dafa rek affaire may jaaxal. mais lan ngay décortiquer ëppal xam nga sama biir moom mooy li ma la wax léegi-léegi nee naa la dafa mbëri yoo xamante ne maanaam dañ naan dafa ëppal. parce que na muy bëree la des fois da nga ci gis ay faay yoo xamante ne tey bu fekkee am na yeneen bëri yoo xamante ne mën nañ ne kii def na faay bii nii parce que rythme bëreem la parfois da ngay gis par force da ngay gis ay faay yoo xamante ne am na mbëri yoo xam ne boo boo fa yeggee ñoom rek mën nañ la ci daan moo tax am na ñoo xam dañ naan dafa ëppal mais ëppalul rythme am la rythme am moo mel noonu moom rythme am day teggi teggi waaw même contact sax moom rythme am noonu la. noonu lay bëree moo tax bu gaa yi di wax naan dafa ëppal dafa kii ëppalul de rythme moo mel noonu dafa rambax rythme du la may nga nooyi maanaam bu tegee benn clé moom balaa ngay comprendre dina tegaat beneen waaw moom noonu la mel. avant ñu ñëw ci combat bi gis nañu mbër yi bañ nekkee ci digg géew bi am na dinañ violence bi dinañ ci ñëw après mais gis nañ bañ nekkee ci digg géew bi. Lac de ba mu nekkee ci digg géew bi ñu gis ni xot sottante gàllaaj xëccante bien vrai que nekk foon mais yaa ngi doon suivre lépp ba nga ko gisee à un moment amoon lenn loo xamante ne sa xol sot na ci wala jàppoon ni lii combat bi à tout moment mën naa yàqoo nag nan nga gisee ci digg géew bi xajam bi mu xajamoon. waaw avant tout dañuy sant ñi nga xamante ne mooy gémi fa nekkoon parce que ñoom tamit liggéey nañ ci liggéey boo xam ne liggéey bu rafet la tey anam na sëb bu ñu fa nekkuloon tey dina doonaat foofu noonu. làmb ji mën na fa jaaree yàqu ñoom tamit ñu ngi leen di félicité di leen ñaanal yàlla na leen yàlla defal jàmm nag yi nga xam ne bëri ñu ngi leen koy teg nañ ñu ci jéggal bu baax a baax a baax ñun bu ñu sañoon bu ñu ñëwee rek yaa ngi léppay normal ba ñoom duñ ci sonn parce que tamit ñoom lépp lu ñu def rek pour suñu kaaraange la ñun parce que mbër bee bu neeram tàngee kii neeram tàng ku nekk yor dara sa loxo bi di nga fas yéene jéem a def loo xamante ni erreur lay doon après. dañ ko coûté cher dans ta vie ba tax na jeunes yi moom dañ leen di remercier bu baax a baax ci actes yi nga xam ne ñoo koy def c'est à saluer yàlla na yàlla fay seen xol yaa ngi dégg mais làmb dafa nekk li nga xamante milieu seytaane la am na loo xam boo ci boo ci intervenir rek ba moo te mën na indi yaa tolof tolof ngi dégg ba tax na kat loolu noonu am ci biir ci benn côté bi neex na neexul am na ñu ko bëgg am na ñu ko bëggul am na ñoo xamante ne loolu rythme boobu am rek. yëngal na stade bi coow li gars yi yuuxu fii sama mbër moo def lii sama mbër moo def lii mais loolu lépp ay détails la waaw lii nécessaire bi moom mooy ñoom ñaar ñu dugg ci biir géew ñu bëre kenn ki am ndam loolu kese la. nan nga ci gisee taxawaayu Balla Gaye ndax gis nañu Balla Gaye bi ñu fa woon mais esprit de grandeur bi mu def nan nga gisee taxawaay boobu. waaw taxawaayam rafet na trop te moo ko war ci mu neex ko ci mu naqari ko moo ko war c'est son petit frère suñu rakk la ñun ñëpp. bu lat ñëwul rek moom ma nga fa mu taxawaay ci taxawaay bu rafet taxawaay grandeur nag benn acte la fa def mu neex ma trop mooy ba coachu euh, rëg-rëg bi dóoree tullee loxom bi toj ñan bi ci kii ba ci loxo bi ça m'a touché nag metti na ma trop parce que tamit dañ ne coach bu defarul rek bu mu yàq parce que chaque jour coach rôle lan la moom mooy mu gis dara am mu ñëw intervenir ci bañ loolu bañ yàqu mais faut pas que ngay def loo xamante ne tey maanaam nit ñi ba dañ koy ñaawlu. yaa ngi dégg euh, coach loolu mooy ah. rôle am lan la moom mooy chaque jour que jëfee rek maanaam luy yàq mu fexe xool nu mu baaxee. mais faut pas moom tamit muy jéem a excité supporter yi yaa ngi dégg loolu du rôle du rôle coach chaque jour coach day gis luy waaj yàq mu ñëw defar loolu mooy rôle coach waaw. ba ñëwee ci diggu géew bi arbitre bi sifflé Sa Thiès féete gauche Reug Reug féete droite combat bi nan nga koy décortiquer. da nga bëgg ma décortiquer la ko. deux la. moom la moom la gars yi wax polémique boobu moo am. waa de suite rëg-rëg daan na Sa Thiès daan na loolu la gars yi wax mais rëg-rëg moom lañ jox victoire waaw léegi première bi nan nga koy décortiquer combat bi nan nga koy décortiquer. xam nga lii la laa koy xoolee sama komba booy ña moom laay xoolee komba bi da ngay am ndam ñu war la ko jox ci géew gi yaa ngi dégg ñu bëriwaat ñu daan la après nga dox. nga dem def sa recours ci benn côté bi damay damay xaw a wax ak waa CNG tuuti parce que xam nga la ma wax ak ñoom dama xam ne am na bés yoo xamante ne bu làmb amee nga xam ne bës bi choc la jëlal arbitre yu valable yoo xamante ne wóor na ñii du ñu réer ci benn plan teg fa arbitre yoo xamante ne wóor na ñii du ñu juum ci dara nit ku dul juum nag amul. mais nag am na bés yoo xamante boo fay teg arbitre teg fa arbitre yoo xamante ne ñii dinañ mën a tenir lu bari ci bés bi waaw bëri nañ ñoom ñaar saakeef yàlla may ko ndam mu dem lu mu bëree waaw dafa dox ci kaw rëg rëg ba mu doxee ci kaw rëg rëg yaa ngi dégg ba mu dox ci rëg rëg mu sànniku rëg rëg daw wàcc seex tànk bi bu seexee tànk li mu seexoon baax na mais li saaket def genre talon fesse ci ginnaaw recul ba mu def noonu moom moo tax lu roxul Reug Reug xaw a rocceeku waat yaa ngi dégg Reug gën a ñëw bëgg ko gën a sexaat jàpp benn tànk loxoom ci ginnaaw ci côté ngemb ba mu pivoté moom la saakee fi pivoté jël beneen tànk bi teg ko côté bële mooy jéem a pour jëm ko tegal see saakee fàqat ko mu dugg ci biir ci la quatre appuis yu amee waaw quatre ba mu amee ñu dem ba ci biir moo ci li ma dégg Sa Thiès ne dafa dégg arbitre bi sifflé yaa ngi dégg mais loolu noonu pour man ba affaire boobu amee ba ñu ar attee pare ba arbitre ñëwee mais liñ fi war a indi xam nga la moom mooy ñu jéem xool nu ñu def pour indi fi VAR. parce waaw mais arbitre na tourné jàkkaarloog jàkkaarook géant bi c'était très facile. que ñëw ñu ñëw ñu ne prix quatre appui am na am na wala amul mais may ma ma dem waxtaan ak ñi ma war a waxtaanal ñu tourné wax ñenn ñi jàkkaarloo ak écran géant bi dinañ ne ko saa keef wala daal dafa yomboon ba ñu ngi taxaw di waxtaan kenn tourné jàkkaarloo ak écran bi comme vaar amul ci diggante bi loolu muy xool noonu dina gis ne saa daan na wala daanu après ñu ñëw bëriwaat rek rek daan ko. waaw mais dama yaakaar ne bu ñuy bu buy valable di am kay première sud bi moom moo valable te looloo am première sud bi valable. trois pu def ah bon trois pu hmm. ah, ah doy na waar de ah. àdduna laa la wax ma Sénégal de boo nee Sénégal fii rek ngay am mais àdduna koo xool statut hmm. quatre appui nga ciy gis vidéo yi quatre appui nga ciy gis. waaw daanu na bon sportif la daan na daan ay doomu jàmbur ñun ñi di wax bëri nañ daan nañ ñu yaa ngi dégg c'est pas la fin du monde suñu mbokk mbër la te lu ñu wax mukk lu ñaaw ci kii ak ci kee ci ñëpp la ñebale mais lu ñu gis rek la ñuy wax yaa ngi dégg ay nitu dëgg lañ lu ñu naa féq dañuy wax li am quatre appuis lañ gis man moom laa gis yàlla joxuma benn bët gëmmul sama ñaari bët yi fatt sama ñaari ñaari bët laa yor te maa ngi xool te li ma gis rek laa wax katapi laa gis waaw du question lu ma faral saa keef yaa ngi dégg mais quatre appui laa gis moom laa gis te moom laa mës a bett. nga xam bett na ma xam nga non man bettu ma nag parce que damaa xam ne rëg-rëg xamul saa kees nee naa saa kees bu ñëwee jàpp ju ko ci mystique jàpp ju ko ci dara di nga bëri ba sa làmmiñ bi génn. mais gars yi dañoo comprendre que nit koo xam ne bu ñëwee nekkul ci ay erreur rek ngay dëkk mais nit ku ñëw nekk ñu xam ne kii nekk na ah di nga bëre ba sonn loolu mooy Sa Thiès. Reug waxoon na gaalam da koo ser laaj nañ ko ko keroog ba tey mu ne gaal gi da koo ser léegi nag mu ne mbelal mi ngi mali bu mu tekk fii. mbër bu këpp doole amu fi bu ko bu ko mën a daan fii amu fi dégg nañ ko mu wax loolu noonu. Ah, waaw nee na gaal gi ba tey bi nga ko seet man. ah déet gaal gi kay man démb bi di demoon naa puus ko pour mu delluwaat <laughs> gaal gi kay di dina ko jël yóbbu ko caare. gaal gi waaw dafay def déedéet ah? déedéet déedéet rek nag sama petit frère nga rek bàyyi li ngay def kaay jël gaal gi rek bu la ma puusal lu ko hmm. dama koy puus si de lu leer laa la wax. kaay pour sama rakk daan na ko nag yow tamit saakees rek. ba saakees soobee na kay fi ne baatu na record bi fi mu ne nii. Ah. waaw. nam nam muñu rek raawul na ñëw dem gaal nee naa ko damaa allergie gaal bi. Ah, ah. xam nga am na ñoom bu ñu lekkee si pax dañ naan dañ ko allergie day feeñ seen yaram. Mm. man gaal gi su ma ko gisee fii damay am. oui ma gaal gi waaye yàpp ci rek si na ma ko doon kaa pousse kaay jël ko rek. amul problème yow ñoo far kaay jël rek <laughs> sportif nga nag ah, ah, ah. ah boobu ba tey am na ay polémique yu am di leen nuy au passage gis nañ ne suñu ñaari papa génn nañ def li nga xamante ne mooy seen liggéey mm-hmm. mais am na ñoo xamante ni peut ku ci mel ni ñoom waa rek rek jàpp ni peut-être liggéey dañoo jàpp ni dañoo nekk place su CNG mu doon na benn polémique boo xamante ni dafa commencé sax génn ay wax yoo xamante ni pour man jaru ko quoi ñu gis loolu nan nga koy déggee entre Père Tafa ak Père Bécaye li ñu wax ñoom ne loolu lañ gis ñu gis ni wax jooju noonu dafay def benn polémique bu garaaw ah nan ko gisee ak wax yi ciy génneeku. waaw vraiment loolu moom rafetlu ma ko dara parce que ay consultants rek ñoom ñoo nekk ci plateau bi maanaam tey boo gisee dara ngay xool sama combat ak Boy Niang ba mu amee ñii dañoo génn wax ci Père Vague génn na wax ci keneen ak keneen génn na wax ci mais di dara nekku ci ñoom dañuy gis rek la ñu wax il faut tamit gars yi am compréhension boobu noonu am xolu muñ ñoo xam ne ñii li ñu gis rek la wax dara nekku ci yaa ngi dégg dëgg la fa neexul ci xool nag seen mbër ñàkk pare seen mbër dafa daanu dafa daanu te wallahi li ñu gis rek wax te ñoom ñi nga xam ne ñu ngi taxaw di wax ni ñoom bu ñu demee ba toog seen biir nekk ba tëdd ba teg njëgënaay seen bopp dinañ xam ne seen doom daanu yaa ngi dégg mais itam dama bëgg lépp rek na rafet. di sport la faut pas que ñuy ŋàññante wala ñuy waxante lu ñaaw. xam la ñi nekk ci plateau yi suñuy papa lañ lu ko mel ni comme père Tafa Gueye père Bekaay Mbaye ah grand Lamine Samba ñoom ñaar ñuy kilifa lañ mais ñoom li ñu gis ak lañ wax waxuñu ko pour ànduñu Reug Reug wala dara te Reug bu loolu amoon tamit mu dal ko ci saa noonu la ñuy taxee wax ko yaa ngi dégg ñoom tam nañ am compréhension boobu ñu xam ne lii làmb la yaa ngi li ñu gis ak lañ wax. arbitre sur le du terrain moom di yëkkati na guy gi Reug Reug ne ko. yow yaa am ndam ñu dem ba ci biir ñu gis ne moom def na quatre appuis mais ñoom bu ñu toogee tele télé dañuy noppi doog di xool. dafa war a nopp dañoo war a nopp bàyyi CNG def liggéeyam. waaw mais ñoom écoute ma lay explique tey yow journaliste nga mhm. gis nga dara danga nga naan pat noppi même CNG bu waxee ñoom normalement seen rôle li ñu la fa tegee moom mooy bu ñu xoolee dañu naan ah sa dëgg dëgg dëgg. li ma fi gis ni catapule laa fi gis parce que ñoom lu ñu gis rek wax yaa ngi dégg tey bu ñu noppee rek dinañ leen dinañ leen wax ne carrément kat yéen kon lan mooy seen rôle ci plateau yi seen rôle ci plateau yi lan la CNG bu defee bu defee devoir am ñoom par force seen seen kàddu dina fa jàll ñoom ñooy taxaw ne gis nañ chute wala gisuñu chute tey bu ñu gisuloon chute wallahi ñoom noonu la ñuy toogaate encore ne gisuñu chute mais dañoo gis chute tax àdduna bi ñëpp gis chute ñëpp gis daanu kon loolu loolu noonu bu amee na gaa yi xam ne ñii toog nii fi ñuy laa ñu li ñu gis rek la wax du dara dara nekku ci waaw dara nekku ci waaw ñu wax leen ne lii làmbal rek dañuy foo ñun ñëpp faut pas ñuy ŋàññante suñu biir xam la di xasante jaru ko daal àdduna amul solo xam la àdduna mul solo Père Xarim Ndiaye àdduna mul solo ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay. bokk aar bi ñuy bokk nag kon donc faut pas ñuy taxaw di sànnante ay xeer ba ëllëg lii bu poussé bu ñu dawlee dinaa leen ko wax bu dawlee bu bu demee bu paasee weer rek taat affaire day am day day sedd day nan ngay jàkkaarloog nit kooku di ko xool ci bët maanaam na lépp rafet faut pas ñuy weerante am na mu solo waaw lii day jeex waaw. booy bopp yaa booy dara nekku ci nag ñaar. moom moo waxoon bopp yaa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 76 98 76 532 64 17 Ndiaye Global Business mbégte kese la